Ouais, avant tout, je vais dire Alhamdulillah, parce que c'était pas du tout évident, mais Alhamdulillah, encore une fois, on l'a fait. Voilà. Donc, euh, nous avons analysé le match. Bon, je vais dire débriefer le match, ça, moi En premier mi-temps, nous avons équipe de libérer l'espace. Mais on a pompé, on a pompé jusqu'à ce que cette équipe de ait l'espace, espace, nous exploiter quoi parce que boo xolé li ñu dugalee but bi loolu lañ doon entraîné semaine bi yépp à l'entraînement entraînement donc euh, alhamdulilah en deuxième mi-temps bi ñu ñëwé xam nañ ni ñoom dañuy ñëw pour attaquer donc euh, si la wax nañu euh, occuper espace yi nga xam ne ñoom moom la ñuy bàyyi donc loolu lañ def pompé waat dugal deuxième bi ba defaat troisième bi nga xam ne arbitre daf ni hors-jeu la. <laughs> waa c'est que match bu ne ak ni ñu koy aborder soo ko poussé tuuti pousse ko mu taxaw da ngay da ngay da ngay teggi sa tànk voilà balaa leneen di la ci fekk loolu rek la mais rythme bi di ngeen gëna gis beneen rythme bu gën kawé parce que équipe bi mu ngi commencé huilé ils ont raté trop d'occasions et inshallah, à l'entraînement dinañ si gën a bàyyi xel parce que amna équipe yo xamné ni boko raté ñu duggal ko donc euh, tu peux payer cash mais inshallah, au fil du temps dinañ si gën a liggéey bu dee xëy premier match nga dem 3 points donc nga euh, préparé projet match. waaw je le euh, je les avais dit ça naa leen yalla def na bi ñu ci nawetaan ba tay alhamdulilah encore je touche du bois mon premier match musuma koo ñàkk kon loolu l'on leen dit, ne match bi dañuy ñëw gagné ko amuñu lu ñuy calculer on va gagner on a gagné jërëjëf yàlla suñu borom. waaw tout d'abord damay encourager sama sama samay pépite di féliciter Malika Plage je pense que nous nag ku ñëw woon fii match bi peut-être déception am nañ ko ñun Cité mais vu la physionomie du match mun nañ ne déception bi am on peut dire que la meilleure équipe a gagné waaw on a une équipe jeune. par manque d'expérience aussi ça arrive nga ñëw dans un match comme sur ce contexte mu demee nii ñu nax la dugal la ñaari bi yoo xam ni noo ko expliquer mais nag man li ci mën a li ma ci mën comme conclusion mooy que ni daf ñuy permettre ñu mën mën a defarwaat waaw je pense que dans une compétition njëkkee défaite moo gën mujjee défaite waaw ndax soo ko ñëwee soo ko njëkkee sur le premier match mun nga ko rattraper sur le dernier match boo gagné tu seras champion moo gën nga dem ba final ñu dóor la waaw xanaa waaw équipe moom compétition nii la rek plus rek plus ngay gagné gagné a gagné expérience dina metti nag si bu dee si vous êtes des jeunes eh, dina métti trop defar bi ambiance boo ñëwee euphorie bi atmosphère terrain bi boo tàmmul jeu ñu lay wër day doon day nekk benn affaire mais sur ce je pense que ni suñu coach Bakary mu ngi def liggéey bu am solo je pense que nag ñu mën a permettre ak moom ñu jën a gën a rectifier affaire yi gën a xoolaat faay yi a liggéeyaat surtout waaw ah, si bu dee xale nga nga nekk si affaire da ngay jéem a liggéey ah, amuñu woon dara mënuñu woon dara mhm. dañoo favoriser woon liggéey ak nangu man je pense que ne booy suñu liggéeyee ñu nangu ñun ñëpp mhm. comme yu man comme ñoom ñu nangu topp suñu course bagar yi mhm. pour man ci yoon bi ñu war a tegu dina ñëw seeg waaw yàlla may ko expérience xam na football je pense que ni bu nit boo ko jiitalee rek jox ko confiance si la confiance est là rek man je peux dire que tout faire quoi Euh, merci beaucoup grand jo maa lay ziar bu baax di rafet lu baax liggéey bi nga def yow ak sa caméraman bon di profiter di ci waxaale ne leen Malick yëpp ngi leen di suivre yéen ngi def benn travail bu extraordinaire te di ñaan aussi yàlla mu gën leen cee jëmal kanam parce que aussi Malick lii la manqué mooy visibilité que y a pas mal de talent fi ci Malika mais luy problème moom mooy ay médias yi nga xamné ñom ñoy ñooy promouvoir jeunes yi ñu mëna a lolu da dafay manqué tey gis nañ ne yaa dox ci tànk yooyu kon donc dañ lay jaajëfal di la gëna encourager aussi ci lolu non yow ak ñeneen ñu melni yow té liggéey ci lolu non di leen jaajëfal bax bon concernant bu ñu dellu siwaatee ci match bi yaakaar naa dañoo ak benn équipe bo xamné ne euh, comme tout à l'heure suñu ben président ñu mu ko waxee mooy perkam moy que né match bi buñ ci jëlé won victoire sax yakarna ñun war nañu xamanté bon yalla day naxé quoi franchement ngeen ci ma ci kàddu gi parce que dañu dajé ben équipe bo xamné depuis plus de 3 ans moom moo dominé football malikoise muy AS euh, comment Malika sur mer depuis 3 ans yakarna ken gagnou ko suma juumul mhm. au pire rek match nul lay am ñu taxaw tay ñu nek ben équipe cité bi nga xamné ça fait plus de 10 ans bi nga xamné ne ci reconstruction mhm. bon bima ko jëlee ak légui ça fait 3 ans 3 mhm. ans lañ ma denk mais 3 ans yooyu ñu jëlee nako ci condition yu metti ñoo di tapitap di ñëw ak mom tay ma dajak Malika plage bi ni bon il nage jéem naa taxaw je naa mais franchement doole yemul. Mm. loolu dañ koy accepter parce que faut être sportif. Mm-hmm. dañ accepter accepté doole yemul Malika Plage ñu wane na bon il est supérieur par rapport à nous. Mm-hmm. donc accepter nañ ko on a joué le jeu. Mm-hmm. ñun teg nañ ci terrain parce que qui gisuñu sànni ballon bi kenn gisuñu def leneen loo xam c'est anti jeu. jëm nañ essayé joxe lu ñu am tamit. wane lu ñu mën mais gis nañ ne bon. les jeux du football sont avec d'accord man su may su may sur ci question bi pour nga baal me reformuler waat ko damay naan li manque première mi-temps mu ñëw deuxième mi-temps mais mënuñu ko.

contre l'ONU mais malheureusement ça n'a pas abouti gis nañ ne nous ci loolu ñu bi en deuxième mi-temps jëm nañ génn dal seen kaw jouer am nañ ay quelques occasions mais concrétiser wuñ ko man pour man foofu la manque de lucidité bi nekk ci ñun ak aussi euh, la présence euh, comment adresse de l'avant-centre bi nga xam ne tey jii taxaw fixer la défense adverse ba nga xam ne bu ballon bi même bu faites ne il est dos au but mu mën a def ay raquettes wala mu dévier ci ailier ci côté yi pour ñu mën pour ñu mën réaliser lolu noonu tey loolu daf ñu manquer bon am nañ ay homam mais peut-être automatiquement moom moo ñëwagul parce que tamit à peine un mois et quelque lañu entraîner entraîné par rapport à ben équipe bi nga xamné ça fait plus de trois ans mu ci même rythme bi kon donc mënul yam mais bu fekkee ne ñu ngi jëm essayer def lolu mais ñom ils ont les moyens pour contrer ça mm-hmm. wa sûrement sûrement sûrement même au niveau de l'effectif parce que boo xoolee les onze de départ ñëw nañ joxe nañ li ñu mën mais bu ñu defee changement ñëpp gis nañ ni parce que football du fen ñëpp gis nañ ni am na ay joueurs yoo xam ne wane nañ ne ñoom amoon nañ seen place ci équipe de départ bi donc on va essayer de travailler avec bon dinañ jéem a xool ay quelques changements yu ñu mën apporter aussi dinañ jéem a def travail ci loolu noonu daal incha allah donc euh, ma jógee fa lancer benn message ngeen baal ma euh, pour suñu adversaire bi nga xam ne moom la doon daje tey muy Malika sur Mer parce que bu ñu fàtte ni aussi ni représentant Malika au niveau des phases régionales donc li may ñaan mooy waa Malika yëpp nañu génn ñu dem soutenir bu baax AS Malika sur mer te xam équipe bi équipe Malika la du équipe sur mer kese ñun ñëpp bu gagner Malika moo gagner. bu perte Malika moo perdre. kon donc nañu génn massivement dem soutenir ko ku am loo xam ne mën nga leen financièrement wala sa doole wala sa présence ci seen match yi nga dem di ko def parce que loolu mooy doxal football Malika di ziar bu encore coach Félicitations coach jaajëf